ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission Mon Canapé comme ni ñu koy defee euh, saa su nekk ñu ngi leen di dalal ak euh, jàmm ci bile émission waaye itamit euh, comme je vous le dis tout le temps dañu fiy dalal ay artistes yoo xamante ne à chaque fois rek li ñu def dafay nekk loo xamante ne da leen di soxal ba tax na tey jii ki mu indi ci Mon Canapé nag nekkatul ku ñuy présenté comme j'ai tout le temps l'habitude de le dire dama koy bàyyi rek mu nuyoog yéen comme ça ngeen xam tey jii kan lañ fi dalal El Hadj nuyu naa la. salaamaaleykum kat yi maa ngi leen di nuyu ah, di kontaan si sa émission mon canapé ah, sunu canapé maa ngi kontaan ci invitation bi kontaan lool ci dal fii ak yow sekk ak yow plateau bi. merci beaucoup mm-hmm. euh, bi nga nangulee euh, ñëw ci li nga xamante ne moom moo di suñu plateau ba tax na euh, sama première question El Hadj moom moo di fornage weewu bay ni que sa enfance benn xale nga woon boo xamante ni dafa terrible mën nga ñu ñëwalaat tuuti ci sa enfance. non non man moom sama enfance damaa yar woon trop. waaw hmm. ah, yar woon naa trop. xale nag du ñàkk bu nekkee ndaw. Hmm. dina dina lëj tuuti rek <laughs> mais eh, ëppul woon man moom sama was ëppul woon tamit kiiwul woon yar woon naa lojoon naa tamit. <laughs> ci diggante bi nga nekkoon waaw ci diggante bi nekkoon ci diggante bi kese laa nekkoon. Mhm. Mhm. d'accord alors euh, ñu ngi gis ni que tu as fait des mhm. bi nga demee ba classe cinquième da nga arrêté. li nga xamante ne moom di sa jàng lan moo war nga jël décision boobu. waaw décision bi nag bi ma koy jël euh, metti woon na trop parce que boobu musique euh, boobu ëpp na ma doole. boobu musique ëpp na ma doole sama vi yëpp ma concentré wu ci musique commencé di dem ci ay boîte de nuit di xool yi soirée yi di di di daw jàng ndax ay fausse cours mhm. noonu la demee moo tax euh, loolu daal moo yàq sama jàng te regretté naa ko regretté wu ma ko mhm. naa parce que tamit nag destin la parce que nit ki moom loo dund rek mhm. suñu borom moo ne woon jaar-jaar la fii ngay aw fii ngay aw ba ba yàlla di def leneen loolu kese la woon ma bàyyi étude yi ndax musique mhm. waaw musique laa bëgg moom la moom laa gën a sentir sama bopp daal que que bi est-ce que sa famille c'était plus facile pour ñoom ñu nangul la li nga xamante ne moom moo di bàyyi sa étude concentré wu ci musique non non nanguwuñu ko woon ko woon ba ci sama yaay ak ñëpp sama papa ak ñëpp moo koy ñuy de passage sama yaay bëggul mosul woon bëgg ma bàyyi jàng mhm. waaw mais xam nga rek am na xale moom dina toll benn moment boo xam ne yow li lay neex rek ngay ngay gis. Mhm. doo gis maanaam li lii la say waajur yi di wax mais après boo demee ba màgg nag ci ngay xam ne ñii lii lañ la la bëggaloon lu mhm. baax kese wala demee bugg ko woon mais après mujj gi comme daf maa bëgg nag mu mu ànd ak man ci li ma bëgg rek xam nga waajur dafa foor ci doomam ba mhm. lu doomam bëgg mu gis ni lu baax la. da ci da ko ci dimbali. waaw mujj gi nag mu ma ciy jàppale bu baax ci sama musique. d'accord loolu di ma wutal ay guitare ak. Mhm. waaw noonu la di la accompagner alors mu nekk euh, lu am solo parce que des fois doom tamit ci li mu mhm. bëgg rek. waajur bi daf ko si war a bungee gën ko mhm. war a mën a jàppale ci li ni mel. mais sa début ci musique nan nga xamee ne que tey jii yow musique dafa nekk si yow. waaw loolu nag euh, sunu sunu xam nga mën nga ci famille boo xam ne sax ñëppay musique. comme sama papa dafa daan way dafa daan way. sama turandoo muy joué Kora. Mhm. Mm, muy Sori Bakuyate. Mhm. Mm, mu daan joué Senghor Kora. yàlla destin destin tamit day ñëw. Mhm. mais destin bi xam nga rek du du yem foofu kese. man ba ma xamee ni lii am naa am naa tuuti way sama sama sama biir. Mm. teewul dama ñëw rek du dama ñëw rek way déedéet dama dama dem euh, euh, dama dem conservatoire jàng jàngiwaat am cours prof prof de chant muy papa Adolf Adolf Coly ma koy nuyu de passage. Mhm. mooy jàngal voix madame Douta Seck si sama nijaay tonton Vieux Keita mooy jàngal ay yeneen instrument ba yàlla def ak suma beneen nijaay ah, suma beneen nijaay boo xam ne muy Laas Laas moom day jouer kora mi France moom ma njëkk jox guitare tamit. Mhm. ni ma joué moom ma njëkk jox guitare ba pare sama beneen papa tamit père Alex. ma yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo a njëkk jox accord do mhm. ak ré mi moo ma njëkk jox do ré mi mhm. ma koy joué ak sama guitare waaw famille bi nag jàppale ma ci famille bi jàppale ma ci loolu moo dem ba affaire bi yeewu nag affaire bi yeewu ma commencé euh, taxawal sama group taxawal sama group di woo samay xarit par benn benn ñu ñëw di si mhm. jàpp yàlla def bum affaire yi commencé nekk loo xam ni nit yi ku ko déglu rek di nga xam ni ah, ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey te ba léegi nag duñu duñu duñu ne mokkal nañu. Mhm. ba léegi dañuy liggéey parce que musique moom c'est des recherches ba pare du lu ñuy mokkal. Mhm. du loo xam ni dafa dafa am dafa am euh, parrainage déedéet chaque jour da ngay jàng chaque jour da def effort pour xam leneen. waaw parce que musique du mokk. Mhm. donc euh, macha allah ñu gis ni que jot nga am parcours si li nga xamante ni moom moo di musique euh, nekkul wëy rek nga jot a def parce que si biir wax yaa ngi doon wax ne ni que jot nga jàng utiliser yenn instrument euh, yow mu ci mel ni guitare. Mhm. et cetera donc tey jii est-ce que yaa ngi pratiquer loolu ba léegi. bien sûr bien sûr man balaa maa tëdd damay laal sama guitare. Ah. wala bu may wala sama morceau yu bari yi nii yëpp man maa koy composer. maa koy joué ba pare après ma demee répétition jox musiciens yi jox leen accords yi ne leen joué leen ma do joué leen ma la joué leen ma sol joué leen ma ré mineur wala do majeur ma ma place samay accords ñoom ñu joué léegi bu ñu joué rek après man damay teg sama guitare léegi gars yi ñoo koy joué mhm. morceau yi waaye morceau yu bari am na yoo xam ne maa koy arrangé sama bopp am na yoo xam ne nag dañ ma koy arrangé parce que nit doo doo doyloo sa xel. exactement waaw ci musique moom du ma ci doyloo sama mhm. xel. par saa ma dem ci ay mag ne leen ndax lii baax na parce que lii laa composé. Mm. par saa ma composé la boo xam ne musique bi day tàllal kese ñoom nag ñoo ci def ay variation ñoo ci def variation on a joué do kese doo ak mii di ko joué do mi do mi ba ci yàgg ñoom mën nañ ci yokk sol yóbbu yokkuwaat ci laa ñu doogay demaat ci do mii loolu mooy variation. Mm. mu dem variation musique bi changé. waaw noonu la donc da ngay indi sa touche ñoom tamit ñoom ñu indi sa bien sûr. bien sûr loolu mooy ah, mooy indi après nga def benn son boo xam ni macha allah day day cartonné wala mu neex ñëpp rek. ñëpp gis seen bopp waaw ñëpp gis seen bopp waaw. alors ba tey dañuy des ci li nga xamante ne moom mooy sa début mais euh, mm. damay ñëwaat tuuti fi nga xamante ne foofu nga dëkk muy euh, médina mm. nga xamante ne euh, fa nga màggee yaroo fa mm. ba tey ji nga ne fa. ma bëggoon a ñëwaat si sa cadre bi nga xamante ni loolu foog naa Sénégal yëpp xam nañ ko muy sikkar bi nga xamante ne da ko doon def. Mm. jóge si euh, ñëw si wàllu musique. même mm-hmm. si euh, jot nga ñu expliquer ci yu bëri mm. euh, transition boobu noonu nan la demee. Mm. mais est-ce que ñi nga dëkkal amuñu woon mbeteel ci nga jógee ci li nga xamante ne moom moo di sikkar dem daanu ci mbalax mi. déedéet déedéet déedéet non non loolu amuñ ci mbetteel parce que boobu maa ngi nuyu de passage sëñ Axma Mbacke. bu Cheikh Ahmadou Kara daanaka kër Soxna Khady laa daan nekk moom ma jàngal sa sikar boobu dañ daan toog chaque jour di sikar rocher ñu bari xam nañ lool de la fosse wala mercredi waa de la fosse bu ñu amoon pause la ñuy def sikuru la taxaw noonu sikar yàlla def ñu taxaw noonu nag may sikar ak ñoom ñu dem ba ci après mujj gi may am fit dem ci cant yi di jël mm. micro di sikar mais noonu la demee du du way moo nekk sama sama sama sama deret mm-hmm. way moo nekk sama deret bu doon bu doon zikru laa lay def kon du ma solati ji mu solati budi mm-hmm. waaw damay def samay bàyyi laxat bu mag toog kuréel mm-hmm. waaw loolu la loolu la affaire yi moom loolu loolu moom comme wax naa ko waxaat ko xam nga mm-hmm. gars yu bari dañ ciy bëgg te te te ñu bari ñu ma ci te ñu bari merewuñu ma ci waaw ñu bari merewuñu ma ci ñu bari dañ ma ci gën a dañ may gën a encouragé li gën a garaaw mooy presque ñi ma daan sikkarandool ñi fi nekk ñi nga xam ne tukkiwuñu ñi fi nekk ba léegi ñu bari dañuy ñëw sama soirée. di la encourager. mais bien sûr. Mhm. ah man bu te bu ma leen gisee takk ci te bu gisee ci biir morso bi. Mhm. mun naa dugal benn sikkar cant ci biir ci biir ci biir morceau bi. Mhm. waaw noonu la demee parce que saayir ak baatin ñu ànd munul dem dara munul dem bàyyi moromam. dëgg mais munoo nag di di di di mhm. four et au moulin <laughs> mënul loolu moo tax nag ma concentré wu jël sama carrière musicale di ko am mais gën ci nekk quoi effectivement mhm. alors euh, ñuy gis que entre atub 2008 ak 2009 euh, yaa ngi woon ci orchestre ki nga xamante ni moom mooy di Babani Koné seen mhm. relation fan la jógee waaw Babani Koné moo koy nuyu yaayu Aïcha ak Mariam ah, Babani aw ni suu Babani aw ni wula waaw moom suma suma yaay la woon ba ma ñëwee Mali daf ma yaatal bu baax a baax a baax ma Baba Nikone ba ma ñëwee Mali grand sumb daf ma daan yóbbu concert am bi daf ma daan yóbbu lépp te bu ma dafay wax orchestre ñu joué ma sama benn morso bu ma doon bu ma tuddee Kousa moom laa naan joué foofu def naa ko clip biir bama ko waaw mu ma joué boobu am fa xaalis bu bari macha allah moom tamit mu may ma xaalis bu bari mhm. daanaka sax këram laa daan añee këram laa naan reere su ma ñëwul dañ may woo téléphone ne ma doo ñëw gaaw te boobu maa ngi dëkkoon à côté maa ngi woon ACI 2000 am dalaay ACI 2000. Mhm. boobu foofu laa jëloon appartement maag papa wan suma papa bii nga xam ni moom moo ma yóbbu Mali ak Ander Baba Diarra. Mhm. ñoom ñoo ma yóbbu Mali mais baba ne saa yu añ bu jotee daf may woo téléphone ma ñëw añ si ñibbi demaat sieste ba ci kanam bu ñu waree jouer wala dara mu ne ma ñëw reer ba pare teelal ñëw. teel ñëw ñu reer ba pare après ànd palais des arts wala parin saay ñu joué hôtel parin saay ñu def grand sumu mhm. parin saay ñu def Amadou Ampaté Ba mooy euh, seen seen salle bu mag foofu parin saay ma ñëw foofu parin saay palais des arts Africa Show yooyu yëpp def naa ko macha allah. Mhm. ci biir Bamako waaw loolu nag moom Babani suma suma yaay la suma xarit la ma yaay la suma xarit la. Mhm. donc mu nekk ni que Mali euh, mën ne moom mooy. bien sûr parce que def naa fa def naa fa ay featuring ak ay Baba Ñaame Baba Ñaame. Mhm. def ci boppam ci boppam. am na concert yu bari Mamadou. Mhm. ndi jaayam. di bokk Tumaani ndey baay. ndi jaayam moo ma daan joué Kora. ndi jaay Sidiki moo ma daan joué Kora sama morceau bambara yëpp. moom moo ko composé moo ko arrangé moom ma daan maa moom ñu daan nekk chaque jour Mamadou mhm. bu voyagé rek lay laay nekk ak parce que bu voyagé ci la Sidiki daan ñëw daan ñëw euh, di ñu jouer morceau yi mu daan jouer moom mooy woo Sidiki ne na ñëw pale ñu jouer morso yi moom bu fi bu nekkoon voyage rek moom mooy ñëw jouer ma euh, moo tax nag xam nga rek Sénégal xam euh, benn man noble la waaw ah, man du ma man du ma wër nit. Mhm. am nañ connaissance tey suba booy ñëw Sénégal wala dara te cherche woo pour pour pour am jot ma wala mhm. pour gis ma wala pour kii man je vais pas chercher pour te mhm. voir. man noonu laa mel je suis comme ça je suis dans mon coin je vis ma vie aw ma benn pression quoi. Ah, man noonu laa mel te du ma ko jàppee neen quoi parce que tolluwaay la àdduna day am tolluwaay. day am benn moment boo xam ne yow da ngay comprendre ko ah noonu la doo mere kenn mhm. waaw mhm. loolu moo ak liggéey euh, mhm. ñoo ànd ba tax na bëgg naa ba léegi desandi si li nga xamante ni moom mooy ses début parce que xam nañ ne ni que carrière musicale c'est très difficile et yow tamit ci li nga jot ca jaar entre jàng bi ak bokk si orchestre yi dem ba créer yow tamit sa propre orchestre muy tette bëgg naa nga waxaat ñu xëy na yenn difficultés yi nga xamante jot nga ko rencontrer waaw difficulté moom difficulté moom ci àdduna la ndax suñu borom daf ñoo bind àdduna moom mm, mm, noo def dina metti àdduna moom ku la ñëw nela nekk naa ci àdduna ba ma dem ma nekk ci sama àdduna chaque jour sama vie mi ngi neex mi ngi stable mi ngi dundul ci àdduna mm. <laughs> déedéet amul amul ndeem gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo ñu gën ñëpp àddunam bi yëpp ay nattu la ko suñu borom teg mhm. te da nangu mhm. kon ñun doomu aadama yi par force dañuy jaar ci lu metti day metti mais da ngay bës sa xol xam ne yow yaa opté pour être un artiste wala yow yaa opté yow yaa bëgg lii di ci dégg lu ne par saa di nga toog wéet nag mhm. waaw mu nga toog wéet mais da xam ne lii la lii mooy yoon bi maanaam faw mu metti bu mettiwul rek baaxul sa yoon neexul waaw loolu difficulté moom mënut a ñàkk mais du du difficulté yu neex lay doon parce que da ngay naan ah, yàlla nii la ko bëggee nii la ko bëggee nit da ngay dox ba ci yàgg pare saa nga am gàllankoor pare saa nga jug pare saa nga daanu mais boo daanoo bul mës a tëdd toog déedéet da ngay jugaat parce que loolu mooy àdduna. Mhm. waaw loolu mooy àdduna. effectivement difficulté moom mënut a ñàkk ci sunu liggéey bi te doomu aadama lañ ko bindeek euh, coono waaw faw coono di am waaw pour nga mën a jariñu faw nga am coono. faw mu metti bu mettee rek après day neex. di nga ci mën a jariñu. di nga mën a jariñu te di nga xam ëllëg nan nga koy nan nga koy defee ba ba du yàqu. Mhm. Mhm. macha allah donc euh, gis nañu aussi euh, ci sa carrière jot nga def li nga xamante ni moom moo di émission incroyable talent. foofu mhm. la si euh, Côte d'Ivoire. jot a dem ba demi-finale aujourd'hui expérience boobu nga am lan la la apporté tey ji sa carrière dimbali na ma lu baax dundalu nu bu baax wan na ma ni musique amul frontière wan na ma ni. am na musique yëpp am na tonalité yëpp am na ñoo xam ni contre temps la ñuy déggee am ñoo xam ni contre la ñuy wayee ñoo xam ni contre temps sur temps la ñuy wayee mhm. déggoo mhm. dimbali ci nga xam musique musique mandeng musique afro pop musique musique yëpp am mhm. am na ñoo xam ne ay bool sax am na ñoo xam ne sax voix kese la comme ay gospel ay ay comme comme am na ñoo xam ni maanaam da lay dimbali da lay jox beneen expérience da lay da lay maanaam fi nga yemoon yow da ngay naan non man kon ndekete liggéeyu ma woon mhm. boo demee ci voyage gis yeneen yeneen culture da lay da ngay naan man liggéeyu ma woon kon man defu ma woon musique mhm. parce que feneen ngay nekkaat après da dimbali ba chaque jour da nga ay recherche parce que ce n'est pas difficile de copier le plus dur c'est de créer mhm. nag moo tax léegi après ñu jéem a créer suñu affaire yoo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp mën nañ jël nag suñu mag yi suñu papa yi li fi bàyyi woon mais pas pas ñu abuser si parce que day mel ni kon defuñu lu bees mais dañ ci jël yokk ci li nga xam ni ñu moom la ñu jàng wala loolu la ñu nàmp wala loolu la ñu bëgg def ñu def ko après musique bi dina la dimbale loolu nag voyage boobu moom daf ma ma yokk xam-xam bu baax bu baax macha allah ba ma xam ni musique liggéey rek la. liggéey rek la boo liggéey rek fayeeku. Mm-hmm. waaw boo liggéey rek fayeeku. donc mu nekk lu am importance ñu gis tamit li nga xamante ni mooy wax nga ko léegi yow da ngay créer da ngay innover donc euh, jot nga sori ci li nga xamante ni tamit mooy sa carrière euh, musicale mais euh, bëggoon na am laaj bu ma la laaj mooy sa biir wax dès le début tu m'as dit que sa papa woykat la woon. Mm. ki nga xamante ni tamit moom lañ la tuddee c'était un choriste. donc ñu mm. nekkoon ay nit yoo xamante ni ràññee woon nañ leen bu baax. Mm. macha allah si li nga xamante ni moom moo di musique bi est-ce que tey jii tu as l'impression que ni. xëy na sax romboo leen mais objectif bi nga waroon a teg ki seen digganteeg yow atteindre nga ko. non def defaguma dara mun tàmbalee guma sax commencé guma sax commencé guma defaguma dara ci musique man man ñëwaguma sax. defaguma dara ci musique li ma war a liggéey liggéey guma ko te incha allah dinaa ko liggéey parce que maa ngi ci yoon mhm. bu dee fulla la am na ko. bu dee fayda la am naa ko bu dee ngor la am naa ko bu dee jom am naa ko bu dee fit bi am naa ko bu dee mën mën naa ko. Mhm. Mhm. mais léegi le reste. yàlla day teg loxo jaamam. Mhm. xanaa xamoo fii lu dem yàlla la. nit di nga ko mën nit xanaa xamoo dina ding ko mën sax yàlla jox ko pouvoir. xam nga loolu. dégg nga. ñu bari man Elaj Keita xam naa ne maa mën mais yàlla la yàlla moo leen jox pouvoir dégg nga ma waaw mais da ngay noonu doomu aadama xam ni yàlla muy seddale boo xamee ni yàlla muy séddale rek sa yoon doo ci tiit doo ci am pression da nga koy constant di dund al sabuuru le quatre-vingt-dix-neuvième nom de Dieu muy la patience di xaar yàlla te nag doo toog nag naan maa ngi xaar yàlla déedéet da ngay liggéey dox ay jéego loolu kese la mais bu yàlla ne waaw après suñu borom dalay dalay wan ni sa ku nekk sa kaay ma la àdduna ku nekk sa tour chacun à son tour chacun à son jour loolu kese la doo ko yàqamti da nga koy cons bu ñëwee rek nga xam ni di suñu borom lii la la réserver mais doo ko yàqamti waree ñëw rek day ñëw loolu kese la moo tax objectif bi dañ koy atteindre parce que mën nañ ko mm. mais duñ ñëw rek non yàlla am na loo xam ne da koy def tepp tepp. moo gën a moo gën a yuréet. Mhm. waaw maanaam ba pare ñun carrière la ñuy def. Mhm. carrière la ñuy def macha allah l' essentiel c' est d' ñu ngi exister macha allah. Mhm. ñu ngi sant yàlla ñu ngi exister. macha loolu moo ci am solo mooy maanaam nga exister bu ñu nee Medina ne Pape Youssou Ndour ne El Hadj loolu sant yàlla alhamdulilah loolu sant yàlla waaw tawfeex uh-huh. donc euh, tout à l'heure j'étais en train de, de demander tey jii est-ce que mm. tu penses que aujourd'hui s'ils étaient là di la bunge di la accompagner ils seraient fiers de étape bi nga toll nii si sa carrière sa sa papa bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais yàlla nii la ko bëggee woon parce que faren say yàlla day def am ñoo xam ne am na ñu koy fekkee am na ñoo xam ne ñii duñ ko fekkee xam nga yow ñaan rek ngay man da ngay ñaan yàlla lépp looy am rek suñ borom euh, def ñi ko war a fekkee ñu fekkee ko mais am na ñoo xam ne duñ ko fekkee mais da xam ne loolu mbirub suñ borom la rek maa nga sant yàlla mais bu doon tamit buggoon naa nag ñu fekkee yu bari waaw buñ fekkee comme man sama papa ba mu avant moo dem bëggoon naa mu fekkee sama grand théâtre waaw sama grand théâtre sama premier grand théâtre fekk sama papa loolu sama un peu mais bëgguma bëggoon naa ko mu fekk bi lool ba mu toog sama wet ma jàkkaarloog moom waaye sama yaay mate na ko. waaw mm-hmm. naa sama yaay grand théâtre mu toog nii moom génn gi dajeeg moom mu xool ma ma xool ko sama rangoñ tuuru après ma xam ni matul seede damaa war am dara. Mm-hmm. te incha dama am dara moo tax yaa xam ci ma. Mm-hmm. gisoo je suis pas dans des détails je rentre pas dans des trucs. je me concentre sur ma carrière musicale. sama vie waaw le reste moom ma bàyyi lépp ci loxo yàlla. Mm-hmm. borom bët bi xam na lépp waaw mosuma yëkkati sama loxo ne mosuma mosuma def nit lu bon. Mm-hmm. te duma mës a def nit lu bon ndax aar bii ma nekk nii. Mm-hmm. ndax lii te man xam naa ne parfois ñu laal ma benn affaire. dégg nga ma. déggoo ma de. si si ma ma ne garaawul sant yàlla. xumul la laal xumul kenn la laal. <laughs> donc <laughs> loolu comme ni nga waxee rek waaw dafa bokk ak musique bi déggoo ma de ñàkk dégg naa la bu baax ku nga ñu leen cuppat mais ku mënul kenn la laal dañ ko xaw a posal dañ lay bàyyi ci biir hmm, d'accord mais ku mën ku mën dañ lay laal laal hmm, te yow nañ laa laal tuuti yàgg na hmm. laal yu bari <laughs> mais may parce que noonu la àdduna dana esquiw ci la bokk déedéet ci àdduna la bokk mhm. yonent bi moo ñu gën sallallahu alayhi wa sallam yàlla mënoon naa mënoon mënoon naa ne kii mooy gën di mbindeef kii moo tax ñu sàkk ñu mhm. waaye suñu borom seetaan na ñu ñu tëddal yonent bi mhm. sallallahu alayhi borom seetaan na déggom rek seetaan ñu njabar yonent bi mhm. mu jàpp mhm. parce que yàlla la neex mhm. yàlla dàq seetaan waaye bu lay après <laughs> la patience al sabuur <laughs> donc tey jii euh, bëgg naa ñu wàcc li nga xamante ne mooy sa carrière actuelle. donc euh, El jot nga génnee li nga xamante ne mooy ay album. mais pourquoi à chaque fois rek euh, boo defee benn son boo xamante ne ça parle d'amour mu explosé on dirait que lool rek ngay woy alors que génne non mais man génne naa yeneen parce que nag xaymaa la Sénégal leen neex rek amour la ñuy gis de <laughs> ñii amour la ñuy gis ñii bin faal la ñuy gis mais hmm. man xoolal samay son tegal boo balaa émission bi di jeex nga tegal nëbbal ko ko hmm. wala nga tegal moytu ko nga déglu parole yi hmm. man sama sama samay texte boo ko dégloo di nga xam ne man damay way déggoo ma de c'est pas pour me jeter des fleurs wala may pour me vanter mais damay way man damay way ay thèmes man sama son yëpp dama koy thématiser boo toogee boo xoolee carrière El Hadj Keita ñu bari san Sénégal xam lu leen neex Bin Fall la ñuy jàpp. Mhm. parce que Bin Fall moo leen intéressé. Mhm. mais xoolal samay morceau xoolal sama album nga dugg nga xool El Hadj nga xool li may woy lépp nga déglu xam tamit nit xam nga doo ko forcer man du ma forcer kenn sama bopp. du ma forcer pour nit yi bëgg ma wala may forcer déedéet buñ la waree bëgg rek dañ lay bëgg buñ la warut a bëgg keneen la ñuy bëgg loolu man duma ma kenn sama mhm. bopp. ku nekk ki la saf mais àdduna la loolu te boo ko nangoo rek doo sonn ci këru àdduna. Mhm. moo tax man damaa nangu ndogul suñu borom damaa nangu loolu damaa nangu damaa nangu ndogul suñu borom. lu am rek damay xam ne di yàlla la neex yàlla la neex mhm. waaw mais boo dégloo samay way mhm. di nga xam ne mais man yi ma way amour ñaata la mais man sama xol laa way amour sama xol muy Falagena mhm. Francis Cabrel bi ak Var Var mooy wuyu ak chéri jeex na ñetti morceau yooyu laa am morceau amour de mais yeneen morceau yëpp parce que duñ ko dégloo exactement Ah, peut être loolu duñ ko déglu parce que duñ ko déglu sentimental waaw duñ ko déglu duñ ko déglu moo tax euh, doo forcer kenn sa bopp mais euh, yàlla baax na <laughs> donc lii nii baax na si sax na gën a xam ne ne que nekkul ne wëy yooyu rek moo fi nekk mhm. am na yeneen yoo xamante ne war nañ koo mën a découvrir mais mhm. cependant euh, Bindi Fall bi nga tudd léegi bëgg naa ñu des si tuuti euh, xam sa relation ak ki nga xamante ne moo di Bindi Fall parce que gis nañ woykat yi bu ñuy woy borom xaalis i la ñuy woy pour ñu leen di mun mhm. di xëpp xaalis yow nga préféré woy koo xamante ne wax dëgg fa neex yàlla nekkul koo xamante ne di ubbi ay maletu xaalis di la ko sotti pourquoi le choix d'avoir chanté Bindi Fall waaw Bindi Fall dama toogoon benn fajar ni comme nii rek ma toog di ndékki ma def benn vidéo bu commit ma toog nii rek naan ko Bine Fall mayonnaise bi bu ma jege Bine Fall Bine parce que man du ma lekk mayonnaise. Mhm. man lekk mayonnaise. muy def mayonnaise ma ne ko Bine Fall mayonnaise bi bu ma jege Bine Fall may ma tuuti frites. Bine Fall salade bi Bine Fall de affaire boobu nag. ne pof te vidéo statut laa ko dugal. mais ñëpp di ma laaj vidéo bi ñëpp di ma laaj vidéo bi ñëpp di ma laaj vidéo bi jum. ma koy nuyu de passage xam nga allah moom yàlla da koo may. Mhm. baxaw woo ma ne ma non bin faa la ngi toj dëkk bi foo nekk ma ne ko maa ngi nii koñ maa ngi nii Medina maa ngi ñëw Medina bin faal ñëw ne ma nañ def son bi bin faal nañ def baxaw ne ma nañ def bin faal son xalaat naa ko bu yàgg rek leen maa ngi nii dem studio mu ne ma ñooy ànd parce que mhm. tamit parrain saay waykat da ngay nëbb mhm. parrain saay waykat da ngay bëgg a way benn affaire mais da xaar ba keneen wax loxo ko beneen saa ne la nañ def lii te fekk na yow xalaat nga ko ba balaa nga ko wax da ne ko man def def def naa ko ba pare. Mhm. comprendre mhm. ba xaw tamit nag muy sama waay di sama xarit daanaka lépp lu ma way parce que genn wàll gi yëpp ba xaw ko bind ba xaw juum boo mhm. bind lépp muy sama xarit bëgg El Hadj Keita te ñu bari nag ba xaw mi ngi leen di bindal mais duñ ko wax. maa ngi moom ñooy nekk chaque jour. duñ ko fay yu bari duñ ko fay da leen di bindal te duñ ko wax te bu ñu toogee ci télé nii ñu ne waaye bi lii ak lii mais baxaw mooy bind morceau yi mm-hmm. il trop fort loolu man maa ko koy plaider maa ko ko maa xam ne bu ma toogatee ci télé dinaa ne yow yaay bindal gars yi mm-hmm. te gars yi maanaam il faut être reconnaissant dans la vie mm-hmm. bu la nit bindalee ñun ñëpp ay artistes sa parents sunu xel day tëju parents da ngay buuree paren saa yi suñu xel day tëju ñun ñu parce que yi ngay xalaat yëpp day bari bu la nit bindalee même bu fekkee benn phrase la boo toogee ci télé neel ba xaw de bindal na ma phrase bi moo gën a rafet c'est plus c'est plus noble quoi nit da ngay il faut être noble dans la vie ba xaw bindal na ma man El Hadj Keita il est bien dafa baax ma a sonn ci doomu adama mm-hmm. waaw it yu bari Tidiane Kourouma il est bien daf may bindal te man tamit damay dindal sama bopp parce que man damay bind ba pare saay sama bopp bi tëju rek ma woo baxaw ne ko allo baxaw woo pop lii laa bind lii lii lii lii waaye mais lii moo ci des lii mu ne ma non ñëwal gàlle ma ñëw gàlle mu ne ma fii defal lii fii waxal lii fii defal lii mm-hmm. dolli la la mm-hmm. Mm-hmm. noonu la demee bin faal bi noonu lañ ko créé ba yàlla def mu ñëw gàlle fekk def naa son bi ma ñëw studio mu ñëw mu woo ma ne ko maa ngi studio mu ñëw studio moom tamit assisté macha allah ñu pare ma ne ko ban heure lañu koy génnee mu ne ma heure bu la neex bàyyi ma ñëw gàll ñu def benn vidéo ba pare. Mm-hmm. vidéo bi mën naa la ko wan mm-hmm. si lañ defee maa ngi moom vidéo boobu rek jaal la ko affaire bi commencé def buum ba ñu dugalee son bi rek. Mm-hmm. ci saasi ñu def clip bi. macha allah affaire bi cartonné. Sénégalais ah, apprécié ko bu baax ko parce que tamit. parfois da ngay way ñu xaw a xeeb àdduna noonu la doo way ñu nga xam ni rek suñu borom may na man ñi may way ñëpp mooy loolu. Mhm. nekkul ñu samay xarit samay xarit ñi samay nit lañu ñi samay jigéen ñi nga xam ni maanaam dañ maa yàgg jàppale sama carrière boo xam ne ba ma nekk El Hadj Keita ba tàmbalee ci lañ ma commencé yëkkati waaw nag nit boo xam ni sama nit la ne ma doo ma wayal kii mhm. nga jàppee ko foo sax ma woyal la kooku ci biir morso nga ne la man dama doon foo yow a woy ci si li nga xamante ne moom mooy sa son yi wala sa concert yi bëgg naa ñëwaat ci li nga xamante ni itam moom mooy concert bi nga jotoon a def grand théâtre ce mm. grand théâtre e, qui que ça t'a fait e, jour boobu noonu de voir autant de gens venir t'encourager mm. waaw loolu nag loolu da lay gën a yokk jom da lay gën a motiver wala ne am na ñu lay bàyyi xel am na ñu support ñu ñu la xam ni ils sont prêts pour pour tout pour toi euh, moo tax lool la demee da ngay da ngay gën a jàpp gën a góorgóorlu rek gën a gëm sa bopp gën fonk sa bopp. Mm-hmm. waaw gën a liggéey waaw noonu la demee. Mm-hmm. Mm-hmm. moo moo tax grand théâtre boobu noonu nag ah réussir woon na lool kontaanoon naa ci lool. parce que ba ma ci génnee moom ah. lom ci la ma woo naa ma may ma 500000. commencé laa ñaan xaalis. lom di ma ñaan 500000 naan ma El Hadj envoyé ma 500000. Aba ci laa ko may 250000 moom lom. ku ci nekk 250. Mm, ku nekk parce que lom daf ma ñaan 500000. Aba ñaan ma ma ne ko léegi man mënu ma la lom mënu ma la jox te du di bàyyi Aba ndax ñoom ñaar ay complice lañu. ma ne ko bàyyi ma jox la 250000 jox Aba 250000. mais man abaa defoon newoon na ma ni bés dina ñëw ma fay loxo ko mais ba léegi fay <laughs> bor la. c'est bizarre na si abaa xalaataat bu baax donc aujourd'hui c'est bizarre. on devait aussi parler de ta relation ak ki nga xamante ni euh, bokk na si ñu yor sa production voire même est ton producteur muy Mbacké Diop. Mhm. donc euh, comment votre relation s'est c'est un papa c'est un papa moom sama papa avant moo gaañu. Mhm. la sama loxo te sama papa ne ma denk naa la Mbacké Diop. loolu lu fort la mhm. loolu lu fort ba pare sama papa ba muy gaañu boobu maa ngi Bercy maa ngi Paris mhm. ci aéroport bi laa wàcc gis sama appelu papa ndekete boobu mi ngi ma doon woo ma wàcc ñu ne ma sa papa gaañu waaw muy du daw yaram du doy waar mais da sant yàlla mhm. xam ni yàlla lu mu def nag noonu la parce que ñun ñëppay dem am mhm. na yéex waaye ñun ñëppay dem moo tax àdduna amul du kër àdduna du kër mhm. waaw moo tax day sant yàlla Mbàkke suma papa la sama papa moo tax ma gën ko jàpp muy sama papa muy sama lépp saa saay nag ma tooñ ko ma def yëfu xale tooñ ko daw waaw comme xale ni mu daan def rek génn sa kër dem ci beneen kër boo boo dawee après da ngay ñëwaat sa kër bàyyi daw naa nag dawoon naa waaw affaire doo xaan doo doo man je direct. waaw du wax lu ñaaw du wax dawoon naa dama dawoon parce que day am ñuy nekk sa nopp nga defe ne ñooñu li ñuy wax mooy dëgg te fekk na yow loolu ñooñu lu ñuy wax lu dëgg dañ laa bëgg jaxaseeg sa papa. ñu jaxasoo nag ma sama pap moo tax ba ma amee doom Mbacke Dioum laa ko mhm, waaw. donc tey wan ko ni sama baay nga pour ko ni fàttewu ma li sama papa waxoon. Mhm. laa tuddee sama doom Mouhamed Mbacke Dioum. macha allah waaw laa tuddee sama doom waaw muy sama lépp mooy sama lépp Mbacke Dioum mooy sama lépp mooy sama pap mooy sama lépp. fu ma jaarloo laay jaar lu ma tere laay la ma ba lu ma diggal ma def jeex na. kon tey jii yaa ngi wàcc ay loxoom. bien maa ngi ci ay loxoom incha allah ci kàttanu yàlla ba ba may sangu suuf. Mhm. ndax da jël image sa papa. transféré ko carrément si moom mooy sama papa. ànde ko moom jeex na loolu jeex na ba pare. macha allah donc mu bu ma xaarloowee ba cent ans ci musique. damaa yàqamti woon sama musique man. ma yàqamti woon def ay yu gars yi di def ay bruit lom naan ma bruit <laughs> ñaw lom naan ma bruit ma ne mm-hmm. ma bruit bruit da nga war a bruit mm-hmm. dama yàqamti woon bëgg bëggoon mm-hmm. te ndekete bruit te moom mu opté pour patience bi ngay wax al saburu wala da ngay def effectivement waaw booy dem ba xamatoo foo jëm loolu fa nga jóge woon loolu kese la mu doon lu am solo tey jii nag comme yaa ngi wax sa biir yi wax ne ne bu la xaar loowee nga xaar bu la def loowee nga def est-ce que actuellement tu as des projets futurs sama album pare na ni Mbacke maa Mbacke album pare na def naa benn son muy songal ma ko mm-hmm. ma ciy rendre hommage sama papa Mbaye Gueye Faye ak suñu papa Youssou Ndour def naa ko mm-hmm. son bi macha allah gars yi nga koy kii clip bi mi ngi ñëw nii clip bi ngi ñëw nii maa ngi koy seen nii ñëw nii mm. clip bi waaw mi ngi ñëw nii maa ngi koy seen muy ñëw nii ah kon mën nekk ko xaar si fan yi rek incha allah après dañuy def a Mbacke mm-hmm. conférence de presse bu mag incha allah génnee album bi wan Sénégalais yi ba ñu tëjoo yëpp li ñu liggéey ñu xool ñu déglu après boo dégloo rek nga woo nga wax ma incha allah ah, boo dégloo bu pare nga woo ma après nga wax donc tey jii bu nañ wax ne ne album bi moo nekk projet yi ak promotion album bi pour ñëpp gën ko xam mm. mais yan rythme lañ mën a retrouver si li nga xam album bi am na lépp soñ ci jox maanaam am na lépp <laughs> album bi am na lépp yu mel ne au moins quelques exemples sax non am na lépp am na musique daal musique ak ay featuring am na musique ndax ay grands musiciens ñoo ci nekk tamit hmm. donc du yow kese am na ñeneen ñu. grand musicien sax grand musicien. ñu xaar ko fii ak fan yu néew incha allah. yu néew topp di di di sunu papa Youssou Ndour. sama papa Youssou Ndour sax jox jox na ma musicien bi musicien bi sax joué nañ bi <laughs> xanaa xam nga <laughs> xanaa xam nga. Laylo Charti Thierno Sarr Charti Moustapha Charti. man xol maa ngi gëstu di xool pour man sa gars yi dañ fay nekk. ñoom ngay nuyu waaw ñoom laay ñoom laay bëggee nii. <laughs> donc nekk na lu am solo. waaye mm-hmm. jot nañu tamit gis eh, ci réseaux sociaux yi benn vidéo boo xamante ne ñooñu ñi bëgg na xam nag di eh, nekkoon ci biir mooy bi ngeen nekkee Mbodiène ay eh, kon ñëw na ba si yow. Mm-hmm. donc ngeen am lu ngeen déwante est-ce que tey jii mën nañu xam est-ce que c'est des projets yoo xamante ne da ngeen koy wàcc seen biir wala. non ci Mbàkke la ma doon wax ci Mbàkke ay kon ci Mbàkke lañ doon waxtaan rek. <laughs> maanaam pour nga gën a góorgóorlu. waaw mu ne ma góorgóorlu góorgóorlu. jàpp Mbàkke bu baax ma ne ko incha allah dinaa gën a góorgóorlu mu ne ma jàppal déglu Mbàkke bu baax ma ne ko waaw ok kon kontaan naa jërëjëf. waaw moom tamit muy ku baax macha allah macha allah moom tamit dénk nañu ay baat. wax nañu ay baat yu nañu ñu ñu gën a liggéey rek affaire yi moom liggéey la rek. Mhm. job la rek waaw amul secret. macha allah job la waaw. Mhm. donc euh, gis nañu aussi euh, yaa ngi doon wax euh, tantôt ci say biir wax ni que nekk nga nit boo xamante ne ci sa wàllu musique doo di wuti nit ñi donc pour dem di créer ay link comme ni ñu koy waxee pour am un peu plus de notoriété est-ce que tey jii loolu nekkul loo xamante ne dafay stand by loo un tout petit peu sa carrière musicale. comme comme par exemple di dem si nit di demander faveur par exemple. Hmm, faveur pas en tant que argent. mais bon en tant que collaboration ci musique quelque chose comme ça dëgg la mais sa loolu deful frein ci sa carrière xaw ma peut-être peut-être man xaw ma peut-être peut-être waaw peut-être peut-être tamit loolu la mais pourtant nag man du ma pourtant gisuma ci loolu garaaw de loolu loolu xam sa bopp la rek xam sa bopp la rek xam sa bopp la te xam ni lépp lu fi may rek suñu borom a koy may mhm. xati loo war a am rek ala xuliyaal mën nga daw jug jug wuti ko fekk na maanaam da nga war a toog mu fekk si la waaw nit mën na mën na yàqamti wërsëgam ba dem di ko jëli fekk ne maanaam waru ko woon jëli dafa waroon toog xaar wërsëgam ñëw voilà waaw man loolu laay jàpp damay jàpp nii lépp luy am rek suñu borom la damaa gëm yàlla macha allah dama xam ni lépp lu am rek moo tax sama xol bi dafa weex tàll awma ci xolu ki ñaanu kenn yéenuma kenn safar barke Seydina Mohamed te ma xam ko nag ma xam ko sama bopp xam ko sama moo tax lépp lu may am day day day ñëw mm-hmm. parce que yàlla laa yakaar te koo yaakaar yàlla la yaakaar mm-hmm. moo tax nag lépp ma bàyyi ko ci loxo yàlla xam ni dina ma maanaam du fekkee liggéey rek koy fay non damay fayeeku parce que maa ngi liggéey ba pare lépp lu ñu wax ci liggéey nga fonk sa liggéey bañ a teg bët nit bañ a xool nit ki la mu am ba nga ne yow danga koy am bañ a dugg ci détail mm. wala di def nit loo xam ni maanaam dañ lay buñ la ci fekkee xeeb la du ko def mm. jamais mm. bañkat nga waaw damay toog ceenaas liggéey sama liggéey. lu war a ñëw ci man ala kulli haal dama koy lekk. dégg ma de mbindeef mënu ko tere bañ a xewlu loolu loolu dañ koy xewlu nga xewlu waale ci ñëpp xewlu ba rees ba ne alhamdulilah sant yàlla. Mhm. noonu la nit foofu ngay maanaam parce que boo nemee bay màgg da xam waaw ay xale lañu woon xamuñu woon boo demee ba màgg. Mhm. da xam bañ a dugg ci yu bari bañ a focus yu bari. te lépp oyof moo la koy may te ñun suñu borom may nañu loolu oyof nañu ay taalibe lañ ay baay faal lañ mhm. lépp lu ñëw rek dañ koy jàppee positivement lu ñëw rek ñu xam ne yàlla la ñu dékku ko nga toog yow kese jooy li ngay jooy mu metti nga jooy yow kese xam ne jooy nga yow kese waaw te boo génnee kenn du xam ne jooy nga mhm. te boo génnee di gis benn benn élage Keita yow dama laa bëgg après loolu boo toogaatee non boo toogaatee di ne oh, benn bii rek jar naa daw ba dee mhm. ngir ñiy bañ nga am ndam macha allah mhm. donc euh, tey jii euh, actuellement l' émission tire à sa fin mais dama am benn dernière question boo xamante ne bëgg naa la ko poser muy si style vestimentaire El Hadj da nga am style boo xamante ne dafa particulier pourtant nag pourtant nag man bàyyi naa solu de léegi moom léegi moom bàyyi fa léegi moom <laughs> léegi léegi Mouhamed laay solal macha allah <laughs> mais tey dama léegi Mouhamed mooy mooy sañse léegi moom man mag laa léegi. déedéet bul def sa bopp mag mais on voudrait savoir aujourd'hui pourquoi le style vestimentaire là. léegi nga continuer di ko adopter par exemple tubéy yu pain yi. ni non pain pas pain man du question de pain wala bain wala zin. lu xew c'est pas question de pain wala zin wala bain dama petit dama tuuti. man dama tuuti taay bu ndaw laa. moo tax ñu créé oversize. non man taay bu ndaw laa taay bu baax bi la. lu tax doo sol oversize. non taay oversize su la. tubéy yu nganda yooyu. pour yéen la yu yooyu. <laughs> non du ma ko sol muy direeku wala may lonku kaar yi di ma lonk wala scooter di ma lonk may non du ma ko parce que sama taay la man du ma sol ay kii dam la may sol loo xam ni maanaam je suis à l'aise waaw je suis à loolu kese la man du question loolu mais du ay pain wak yooyu li ma toll rek laay sol de su ma toll woon neneen tamit loolu laay sol mais li ma toll laay sol mënu ma sol lu ma ëpp wala lu lu gën nganda doo ci nekk parfois damay nekk damay parfois dama koy jéem sax mais du ma ko mën du ma nekk à l'aise damay sol lu ngand ni ma ne ëpp du ma ko mën. waaw mm-hmm. ah, mais man sama solu vulgaire ul. non du tout loin de là. c'est ton style à toi. waaw vulgaire ul quoi mm-hmm. je suis trop je suis trop stylé tu sais. Mm. les jaloux vont m'écrire bah c'est ça <laughs> t'as vu ça. oui on a <laughs> nag comme ni nga ko gisee El Hadj Keita lañ dalaloon si euh, Mon Canapé waxtaan ak moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax. merci baay la nga remercier ñi nga bëgg a remercier. merci à tout le monde di remercier sama yaay euh, nga xam ni bëgg nañu El Hadj Keita. Mm-hmm. bëgg yàgg dooleel maa leen di wax nañu jàpp taw mm-hmm. ndax dama koy def <laughs> incha allah. moo koy def tànk lii rotul bu rotul rek incha allah fuñ bëgg a yegg dañ fa yegg waaw mais nag ku yàqamti moom rek laa moom a jaaxal. Mhm. waaw parce que man yàqamti ma. la patience. <laughs> man yàqamti ma heure bu mu ñëw baax na. Mhm. waaw nañu fekk daal ñu waaw fekk ci jàmm daal. mu mhm. fekk ci ñëpp ci jàmm incha allah chacun à son tour xaw kay. <laughs> ku aaye daal di nga wal sa moome. dëgg bu ñu aayee rek wal suñu moome. incha allah jeex na. yàlla mën na ko donc ñu ngi koy ñaanal rek carrière bi gën a jëm ci kanam. et on lui souhaite une très bonne continuation. ba tax na rek ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois yéen ñi nga xamante ne yéen a toogoon di ñu seetaan ci suñu émission bii di euh, mon canapé donc euh, moi je remercie euh, toute l'équipe technique bi nga xamante ne ñoo nekkoon suñu ginnaaw bëggee ñu ba tey jii ngeen mën a toog di ñu seetaan encore une fois merci beaucoup yéen ñi ñu doon seetaan je vous donne rendez-vous très bientôt avec une autre personne sur mon canapé